Sémou laa tudd sant Diouf nekk responsable politique Mboubane nekk directeur administratif et financier agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits. voilà euh, tey dañu daje fii benn soirée boo xamante ne soirée de lancement la benn mouvement bu tudd les gazelles de Sémou Diouf mu nekk un honneur qui m'est fait. par ay xale yu jigéen xale yu responsable yu dëkk biir Fatick ñu xool ne dañuy organiser dañuy organiser autour d'un mouvement tuddee ko les gazelles toftal sama tur mu nekk loo xamante ne nag c'est quelque chose qui me va à cœur donc ñoom bi ñu wootee ne dañuy def lancement bi tey j'ai bien voulu ñëw ànd ak ñoom accepter également honneur biñ ma defal pour nekk le parrain nekk le le le le je dirais pas le président d'honneur mais le parrain de ce mouvement là def ko nag avec beaucoup de satisfaction parce que c'est des jeunes filles responsables ñoo xamante ne constituées d'élèves d'étudiants ñu nekk ci secteur informel ak ñoo xamante ne aussi dañuy liggéey dans le secteur formel donc le choix bi ñu def ci man sama personne dafa nekk pour man un challenge nekk pour man euh, euh, sorte de jël ma comme référence donc bi ma accepté doon le parrain de ce mouvement là je me suis dit que donc j'ai euh, la responsabilité de les accompagner mais de les encadrer aussi pour que li ñu bëgg ci mouvement bi ñoom ñoo ko xam et je sais que c'est pour le développement de Fatick ñun ñëpp ñu jàpp ci ku nekk joxe ci sa bopp ku nekk mettre la mais dans la pâte ba nga xamante ne dinañ mën a atteindre objectif boobu. bo effectivement mën nañ ko wax parce que aussi nous sommes social mais nu sommes politique mais li ñu war xam ci mouvement boobu aussi moom mooy que c'est pas un mouvement qui est purement politique. parce que bi xale yu jigéen yi booloo objectif yiñ ciy euh, yiñ ciy wut également nekk na ku nekk fi ngay jógee ñu xool difficulté yi ñi fa dëkk difficulté yi ñu am. buñ ñëwee ci suñuy ndaje ñu mën ko teg sur la table buñ ko tegee sur la table ñu wut ci ay solution ba nga xamante ne dinañu mën di soulager les populations de Fatick fu ñu mënti nekk biir Fatick mais ci ginnaaw loolu aussi étant politique xale yu jigéen ñu ñëpp booloo également elles se sont données pour accompagnement bu ñu waxee accompagnement dañuy ne accompagner également la ministre Birame Faye parce que ñëpp xam nañu ne Birame Faye fi ñu nekk à Fatick c'est lui mon mentor parce que damay liggéey ak moom donc mën nañ wax ne également mouvement bi comme ni nga ko waxee léegi c' est un mouvement qui est lancé à la veille des élections effectivement ça nous permettra ñuy dugg ci biir kër yi di jàppale famille yi di xam lan moo leen euh, manqué ñu mën ci apporter ay solution mais également séntu nañ ci mu gën ñu mën a dooleel ba nga xamante ne suñu candidat bi nga xamante ni mooy mooy le candidat le premier ministre Amadou Ba ñu mën a fexe de notre part également ba mu mën a am ndam au premier tour. Euh, man je pense que autonomisation des femmes bi nga wax ak émergence bi nga wax déjà yàlla daf ñu dimbali ñu soobu ci laataa ñuy def lancement bi. parce que c'est le lieu d'informer que dans la journée le ministre Biram fay a fait le déplacement. jóg na moom ci boppam mi nga xamante ne moom yàlla def na moom moo jiite tey l'artisanat et la modernisation du secteur informel ñëw na fekk si ñu ñëw fekk si ndaw ñu jigéen ñooñu ci biir quartier bi ñu waxtaan mu saluer organisation bi ñu organiser wu mais également engagé wu pour accompagner leen pour ko ñu mën a autonome accompagner leen pour ku nekk ci secteur bi nga nekk nga mën a développer également comme ni ñu koy waxee ñëpp xam nañ ne ñun suñu slogan avec le ministre Birame fay moom mooy développer Fatick et développer les Fatickois donc dans cette dynamique de développer Fatick et de développer les Fatickois les les les gazelles de Sémou Diouf aussi du ñu des gannaaw dinañ leen développé développer Fatick en même temps. nekk présidente les gazelles de Sémou Diouf dëkk Njaañee li tax ñu tànn parce que gis nañ li muy def acte yi muy def biir Fatick acte social te. xam dañ jàpp que ne buñ àndee ak moom nañu puus ba fi ñu a jëm parce que c'est c'est moom bien vrai que ci politique lay dox mais tamit mu ngi social te gis nañ loolu noonu loolu ñu poussé ñu dugg ci moom depuis bu ñu jógee ci moom ba léegi rëccuwuñ ko parce que mu ngi ñuy jàppale ci coté emploi lépp mu ngi ñuy xelal mu ngi ñuy jàppale bàyyiwul kenn bon puisque semu jàppale te ñun tamit dañ jàpp ne duñu gën a gore dañ koy jàppale jusqu'au bout taxawu ko heure bi ñu soxlaa teew waa ñi nekk ci biir mouvement bi yëpp am nañ ay carte am nañ ay carte électeur mun nañ te nekkul nitu nitu waa buubaan kese am na njaay njaay pël ga dara daaru salaam partout daal ci bay wuñ kenn képp koo xam ne tamit bon sewul neex na te gis nga li muy def mën nga ñu réserver ci liñ nekk parce que depuis bu ñu ci nekkee gis nañ que ci lu positif rek lañ nekk.